bismillahi sant yàlla julli ci sangub sang yi Seydina Muhammad sant suñu ñaari waajur sant suñu la Seexul Xaddim di leen nuyu bu baax di leen ziyaar te di leen baal ak yéen ñi nga xam ne saa su ne yéen a baaxoo fii di toog ci Waarwi TV ci émission jotaay bi jiite ci nuyoo bi nag suñu kilifa Sëriñ Muntaxa Bachir yàlla na ko fi yàggal lool te wéral di cëram di nuyu di ziare sëñ Cheikh Jëmb Fall yàlla ko fi yàlla yàggal lool Fall te wér di cëram di nuyu mboolem kilifa diine wala kilifa aada ku nekk ci département bi dugg ci bërëbu hôpital yi fekk fa ña nga xam ne seen yaram dafa xaw a sutante di ñaan suñ borom fëgg seen bopp ban mën delluwaat ci seen njaboot dugg ci bërëbu yarukaay fekk fa ña nga xam ne ña nga fa nekk di ñaan suñ borom yàlla leen yàlla jële foofu te ku juum ba dugg fàtte yàlla boo fa duggatee ku fa duggatee yàlla ci yàlla musal ci barka Cheikhul xaddin di nuy ñëpp di ziar di jàll mboolem koo xam ne rek euh, suñ borom moom nañu ndax ci moom lañ jóge ci moom la ñuy dellu di ko jàll sama waajur wu génn àddina Pape Ñaame Seck nekk sama rakk waajur di ko jàll ak mboolem famille bi yëpp ak mboolem koo xam ne rek yaa ngi fii ci bokk yi ñu koy jaal di ñaan suñ borom yàlla na ko yàlla xare àjjana ci barka Cheikhul Khadim di jaal bu baax ci waawoon di jaal Daara Moussi di jaal mboole koo xam ne rek jóge fi di ñaanal suñu waajuru góor bu fa nekkit yal na yàlla yokk leeram yàlla yërëm ko boole ko ci àjjana fii salaaw si ci barka Cheikhul Khadim di ñaan suñu waajuru fi desit yàlla nu yàlla bàyyi moom ak boole ko fi sa waaju des nuyu ñëpp ziare ñëpp baalu ak ñëpp ñu dellusiwaat nag sax alxames bu jot nag ci waxtu wi yéen ñëppay toog di ñu xaar ñu dellusiwaat na ci émission jotaay bi di jaajëfal sëriñ xaadim bi nga xam ne moom lañ àndaloon alxamis bi passé ak sëñ góor ci xam-xam bu sell ba xam-xam bu rafet ba xam-xam bi nga xam ne dafa ànd ak yar ak i teggin macha allah nekk émission boo xam ne bi ñu ci jógee wax dëgg yàlla ñëpp ku doon rafetlu di ko ñaanal suñu borom it yàlla na yàlla bàyyi ko xam ci barke Cheikhul Khadim tey ba tey nag ñu ñëwaat ba tey ci xam-xam ndaxte eh, mu nuy wax eh, yoonu murit ay xam-xam da cee bokk ndaxte wax dëgg yàlla ki nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasuul mi nga xam ne moo sos yoon wi eh, daf daan jàng ak a jàngale bind bàyyi fii wax ba fi ñu tënku ci nag mun ci tënkoo ci xam boobu nga xam ne ku tedd ki wax na ko ci ndawi dëkk bi yaakaar naa ne kuñ ci tënku rek doo jum naam sa waxtaane ko ëpp na suñu làmmiñ waaye day jotaay bi saa su li nga xam ne liggéey si Ahmadou Bamba Khadimu Rasuul rek mooy li ñuy wax ci leen fas yéene di ci dox incha allah tey nag mu dalal fi sunu jën sëriñ sunu jëwriñ ñu bàyyi ko mu nuyoo ah, sëñ Mbacke Balla salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah ok soxna Diarra ñu ngi lay ziar bu wér euh, di ziare mbokki taalib yi nga xamante ni ñoom lañ jënoon ñu seetaan kàddu yi. di wax rabbi shrah li sadri wa yassir li amri euh, di ziar bu wér kii fekk dëkk bi Cheikh Mouhamadou Mountakha. te ñaanal yàlla suñu borom subhanahu wa taala eh, may ko mu yeggale ay naalam fi mu bëgg yegg mu yegg fa di rafetlu itam taxawaay bi ak liggéey bi hmm. eh, ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala defal leen tawféex fi ngeen bëgg a yegg ngeen yegg fa ak jàmm hmm. barke Cheikhul Khadim jërëjëf Mbacke a muy nekk nit ku ndax ci màggalu Tuubaa gi leen xamante woon bi ñuy gëstu ci guy ziyaare googu nga xam ne mi ngi ci mbal mu wax ci xam-xam ak yéene ak cofeel goo xam ne am na ko ci kër gii di Waarwi TV tey nag ñu waxtaanee xam-xam euh, bëggoon a xam kan mooy sëñ Xaasim Mbàkke. ok soxna xam naa wax ci biographie sa bopp moom dina xaw a jafe. waaye ci mm-hmm. tënk ngir nekk lu nekk lu mënut a ñàkk. ñun yàlla sunu borom subhaanahu wa nañu ñaari waajur tedd sëriñ Moustapha Mbacke mu suñu Moustapha mu suñu Modou Fatou Xarit mu suñu Massamba mooy suñu waajur ci moom lañ bokkee ci deretu sëñ bi ku ñuy wax soxna ay liggéey mooy suñu waajur bu jigéen hmm. waaye nag suñu borom subhanahu li tax mu dogal ñu teew fii hmm. tam jaaree ko ci xam-xam bi nga xamante ne ñu ngi koy doog a ñu hmm. ngi jàngee njëkk jàngee ci ku ñuy wax tafsir Abdourahman Guèye ginnaaw bi koo ko jàllee ñu dem ci satub suñ Malick Basin si bi ñuy wax suñ alxaaji Fall si mm-hmm. ci moom lañ jàngee ba yegg tabaarak mm-hmm. ginnaaw bi satub suñ Abdul Karim Touré bi ñuy wax suñ Mamadou Touré yeggale ñu ba ñuy bëgg a wàcc mm-hmm. ginnaaw bi euh, doom suñ bësa sufoor bi ñuy wax sëriñ Boso yeggale ñu bañ mokkal ñu jànge alxuraan tamit ci ñaari riwaaye muy riwaaye warsh ak xafs xiraat yi tam ñu jàngee ko ci abdou samad mbuub euh, ginnaaw bi loolu jàllee ñu ñibbisi ci suñu kër waajur suñu waajur yi tam daan ñu boole kuy wax sëñ ibrahima mbàkke doj mhm. di rakk ci suñu xaadim imaam mbàkke mhm. ci moom nag lañ jàngee bay bëgg a jeexal lenn ci téere Sëriñ Tuubaa yu bëree bëree bëri mm-hmm. ginnaaw bi ñu jaar foofu noonu dem ci sëñ Moustapha Mbacke ñi nga xamante ni dafa nekk eh, ci daaru daaru minam si mu taxaa moo ko fa teg mm-hmm. muy jàngale majalis ci moom lañ jéggalee mboolem téere Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne dañ koy jàng ci majalis mm-hmm. ginnaaw bi itam ñu dem daaru maarif gi nga xamante ne Sëriñ Fallu moo ko sampoon ba nekkee ni si ñu ngi fiy jàngale eh, te itam kam fa tegoon ñu koy wax suñu as jaxate ba léegi ba nekk ni si mi ngi fay jàngale mm-hmm. ñu jàngee fa téere yi nga xamante ni mooy à téere yi suñu tubaab bind mm-hmm. comme téere arab yi mm-hmm. euh, ba ci xalil ci wàllu fiq bu dee ci wàllu loxatul arabiyya ñu jàngee fa ba maqamatul xariri ginnaaw bi loolu jàllee ñu daal di dem ci jamono yooyu la benn docteur bi doo bi ñuy wax Abdul Ahad Sané di doog a ñëw ci dëkk bi si mu taxaa teg ko ci masjid bi mu fi jàngale euh, téereb mazhabu malik muy muwatta ñu jàngee ci moom ba jox ñu ijaaza ginnaaw bi ñu daal dem sëñ abdul ahad euh, buso mi nga xamante ne moo nekk sura di jàng yor foofu institut mm-hmm. mu assasatu afia mm-hmm. jàngee fa moom lu aju ci ulumu charia yu yu yu bëree bëree bëri mm-hmm. mel ne usul fiqh sira taarix luga adab yi tam macha allah yàlla ko cee may lool. Hmm. ci moom daal lañ génne ba daanaka mën nañu wax ne mbooleem loo xamante ni bi ñuy génn ci moom mbooleem luy xam-xamul islam suñu borom dénk nañu dénk nañu dénk nañu ci dara. Hmm. ci sant suñu bu baax a baax nag bi ñu tawféexalee loolu. jërëjëf sëriñ Bass bu fekkee fotob sëñ Massamba euh, mën nga koo am foofu nga officiel bu ndax sëtub sëñ Massamba euh, di bu toogee fii di waxtaan te sëñ Massamba ak Cheikhul Khadim nekkoon lépp sëriñ Tuubaa ndax dañ naan lu sëriñ Tuubaa bi ni sëriñ Masamba moo ko maas mm. kon ab sëtam bu toggee fii ci waxtaan ci xam-xam war naa mën a ne balay sa ñu delluwaat di la ziyaare bu baax di la jaajëfal ci ci li ñu nangul lii ndax kilifa yëkkati ko yomb te diggante démb ak tey ci lañ ko wax rek nga nangul ñu ko lan mooy xam-xam. xam-xam buñ ko dee wax dañuy njëkk a wax ci luxatul arabiya mm-hmm. lan la tuddee xam-xam ci luxa luxatan xam-xam luxatan mm-hmm. xam-xam ci luxa mooy lan mm-hmm. xam-xam ci luxa mooy loo xamante ni da nga koy xam dëgg-dëgg nam demee mm-hmm. bu ñu waxee xam-xam nag ci istilaax ci waxin nan lañ ci jublu ci déggin mooy nga xam mbir mi xam goo xamante ni day safaanook ak réer euh, loolu moom la ñuy tuddee xam-xam bu dee ci diine nag xam-xam dafay nekk ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi mooy loo xamante ne dafay yéwénal diggante jaam bi ak li ko tax a ñëw ci àdduna ji te muy jaamu suñu borom. Mm-hmm. beneen xaaj bi mooy li tax mu mën a yéwénal jaamu yàlla googu noonu lu mu doon. Mm-hmm. tax mu mën a dundal suuf si. Mm-hmm. ak euh, yéwénal ba euh, li nga xamante ne mooy yaramam. comme xaaj bu njëkk bi mooy diine beneen xaaj bi mooy xam-xam àdduna. xaaju bi njëkk boobu may wax tamit xam-xamu diine bi mm-hmm. boobu mees na cee tudd lu mel ne aqida mm-hmm. tamit pas-pas li lay xam-xam bi lay jàngal kan mooy yàlla kan mooy yenent yi ñan ñooy yenent yi ñan ñooy euh, malaayka yi gëm malaayka yi gëm yowmal xiyaam gëm dogal bi ak euh, gëm itam bis pénc xam-xam bi lay jàngal lool moom lañ tuddee aqida mm-hmm. euh, waaye xam-xam boobu noonu nag dafa am ay kuréel yu bëri yoo xam ne ñoo ci sosoo am na ay la muy ñoo xamante ne seen xam-xam baaxut mm-hmm. amaan ñi ñuy wax ay jahmiya seen xam-xam itam ñoom baaxut mm-hmm. amaan nañ itam ñi ñuy wax ay rafidiyya ñoom it seen xam-xam ci wàllu aqida ci wàllu pas-pas baaxut mm-hmm. ñaari kuréel rek ñoo ci dañ ko du tënk ci ci ci lislaam wala fu ñu koy tënk ñoom dañuy jéem a askanoo ci lislaam waaye dañoo am ay déggin yoo xamante ni dafay wuuteeg alxuraan ak sunna ndax ñoom boo demee dañuy weddi ne alxuraan euh, dafa jiitu kon ñi nga xamante ne yow dangay saxal ni mhm. yàlla suñu borom subhanahu wa taala dafa jiitu sosuwut ñoom saxaluñ ni alxuraan dafa jiitu dañoo jàpp ni alxuraan mbindeef la moo xamante ni yàlla suñu borom moo ko bind mhm. ñoo jàpp ni alxuraan dafa sosu mhm. day ñun nag loolu duñ ko saxal ñaari kuréel ci ñuy yëngu ci wàllu pas-pas ñaari kuréel kese ñoo ci kuréel boo xam ne kuréel bu wér la muy matrodiya ak achari suñ tubaa nag moom ci xaqida achari desaat na ci xeetu xam-xamu diine yi yeneen exemple yu ma la mën jox muy ilmul axlaax desaat na ci boobu mooy bi lay jàngal wàllu tasawuf mm. boobu mooy jàngale wàllu jikko yi mm. euh, wàllu rëy nga dindi ko ci sa bopp mm. daf ci yow toroxlu wàllu ngistal nga dindi ko ci sa bopp daf ci yow sellal daf ci sa bopp yi tamit bëgg yàlla sorel la ak bëgg àdduna mm-hmm. loolu xam-xam bi la koy jàngal mooy ilmu tasawuf mm-hmm. ba tey mu di saat yéen xam-xam ci xam-xam diine bu man ni fiq boobu ma lay jàngal mm. nan ngay takkee soxna mm. ak itam atte yi aju ci boo dee julli ak atte yi ci li ñuy wax diye ak nit ki fekkee ne dafa def loo xam ne dafa jàdd yoon daan yi ci aju ak ndax loolu nekkul loo xam ne ay daan da ci aju exemple dafa war a tuub rek mm. wala dafa am daan yu ci aju ak la mooy kafaara ak nan ngay ajee nan ngay jullee nan ngay wooree yooye xam-xam bi la ko jàngal moom la ñuy wax fiq ci lool amaat beneen xam-xam boo xam ne dafa lëkkaloo fiq bi ñuy wax usul fiq boobu nag mooy wane at delluwaay yi nga xamante ne ci la fiq di di tege mm-hmm. euh, ku ñuy wax imaamu Shaafi yi moo ko njëkk a développé mm-hmm. ci loolu nag amaat beneen xam-xam tamit yoo boo xamante ne da cee sëswaat bu ñuy wax ilmu tafsir mm-hmm. tax nga mën a dégg alxuraan dëgg dëgg dëgg dégg goo xam ne gu wér la boobu tamit euh, ibnu xaj euh, ibnu jarir ak tabari mooy ki ci njëkk a ba fi ne nii téere bi mag ci tafsir ci àdduna moom mooy téere bi mi nga xam ne moom la bind hmm. minhum mufassaruna mufassiruna allaamatu tabari hmm. wa ibnul kasir euh, ñoom ñëpp ci borom xam-xam yi lañ ñoo xamante ne dañoo bind ci wàllu tafsir muy ibnu ibnul kasir ak euh, ibnu ibnul jarir at tabari hmm. bu dee ibnul jarir at tabari nag mooy ki nga xam ne téereem li mu bind ci tafsir ci jamono yi mooy téere bi ci mag Euh, waaye nag bi nga xamante ne Jalaaluddin al-Muhalli ñëw na ak Jalaaluddin as-Suyuti bi ñëwee. Hmm. ñoom ñaar ñoo résumé nag wàllu tafsir tafsir bil masuur muy nekk tafsir bu wér kan hmm. gën kaa gàttal moom ñoo daanaka ñoo njëkk a bind boo xamante ne moo gën a matale. Hmm. bu dee ñële seen tafsir daanaka gudd lool waaye euh, booy xool euh, day bëri ay israiliyaat ay nettali yoo xamante ne ci bani israil lañ koy jëlee yenn wér ñaareel ba itam ci wàllu ahkam ci wàllu àtte la gën a jëm. Euh, ñu gën a développé ci wax xam-xam xeet xam-xam diine yi am xadiis tamit bokk na ci mooy xam-xam bi jàngale xadis nabawi ak euh, jëmmi xadis noo koy déggee ak nit ñi ñiy nettali xadis seeni seeni seeni melo ndax am na ci ñoo xamante ni dañuy dañuy dañuy tax xadis bi dañuy bu fekkee ni kooku dafa nekk koo xam ab fenkat la woon wala dafa nekk ab chian loolu day tax ñu mën a wax ne xadis bi nekkatul ci daraja bu kawe kon am na ay sifaat yu ñu xool ci euh, ki nettal xadis bi lool na li koy lijjanti ci biir xadis bi mooy ilmul jarh wa ta'dil nga xam ne xam-xam xadis rek dafa dajalewaat yeneen xam-xam yu bëree bëree bëri disaat beneen xam-xam tamit bi ñuy wax taarix nga xam dafay ajuwaale ci wàllu diine ak ilmul tabaxaat mooy euh, siècle yi siècle yi siècle siècle yu ne ak boroom xam-xam diine yi ca ya ca ya ca ya ca dund ak xam-xam boo xamante ne tamit moom la ñuy wax loxatul arabiya ay sarf di ci ajuwaale nax wi itam di ci ajuwaale yooyu faw bala ngaa mën a dégg lislaam faaw nga jàng ko jàng wér kon loolu mooy xaaj bi njëkk bi nga xamante ne xam-xamu diine kese la mu des yu bëri nag waaye dama la kaa tënkal noonu mm-hmm. amaat beneen xaaj boo xamante ne nag xam-xamu àdduna la mm-hmm. te lépp day dugg ci xam-xamu diine muy lu mel ne euh, xam-xamu euh, politique mm-hmm. ndax politique tamit moom dafa am ñeent façon politique benn politique bi omora yi ñoo koy def beneen bi muluk yi ñoo koy def maanaam beneen bi sa euh, xolofaaw ñoo koy def ñett ñi nag boo xool ñoo bokk benn doxin waaye ñoom seen politique ci zahiru àdduna la gën a jëm ci xolub doomu aadama amaat beneen politique boo xamante ni anbiya yi ñoo koy def ñoom yéwénal xolu doomu adama moo leen tax a jug waaye teewut dañuy jàllaale ba ci zahir bi nga xamante ni mboolem li ñuy jàngale dañuy jàngale ci àdduna jàngale li loo xamante ne dalay jëriñ ëllëg yama xe mu desaat beneen politique boo xamante ne borom xam-xam yi ñoo koy def mooy ndax ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni al ulama warasatul anbiya borom xam-xam yi ñooy doone yi moo tax ñoom it dañuy politique ni yonent yi di politiquer waaye nag borom xam-xam yooyu li ñuy seen politique lépp ci wàllu xam-xamu charia fiq la jëm mu desaat yeneen borom xam-xam yoo xamante ne ñoom la ñuy wax wohang mooy waarekat yi ñoom nag ñoom ñooy politique politique boo xamante ni eh, ku mel ne Sëriñ ci politique boobu la daan dox nga xamante ni yar doomu aadama yi defar seen xol man marala leen seen boroom subhaanahu wa ak nu mu mën a def ba jaarale leen ci yoonu njub dana ko jaral sax mu bàyyi ay dëkk maamam ñëw sanc dëkk dëkkam spécial dana ko jaral mu di leen tarbiye ci ay tur yàlla suñu borom subhaanahu wa ak di leen bindal ak ay xasida lépp loo xamante ne environnement boo xamante ne bii maanaam euh, dundin boo xamante ne dana gën a mën a tax seen ruux mën a seeni xol seeni xel lépp di mën a dellu ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala kii dox ci loolu kooku beneen politique lay dox boo xamante ni bokkut ak yële na li léegi mu disaat beneen bi ñuy wax iqtisaad mooy xam-xam bi jàngale wàllu économie mm-hmm. ak beneen bi ñuy wax ijtimaa mooy xam-xam bi jàngale wàllu société ak beneen bi ñuy wax ilmul falak mooy xam-xam bi jàngale wàllu astronomie ak bi ñuy wax physiya mooy xam-xam bi jàngale physique ak bi ñuy wax kimia mooy xam-xam bi jàngale chimie ak bi ñuy wax géographie mooy xam-xam bi jàngale wàllu montagne yeeg euh, doj yi ak suuf si ak xaraayit yi. mu mel ni que xam-xam kon moom lépp rek loo xam ne am na ci àdduna. Mhm. Euh, sëñ bi yàlla suñu borom da koo dëxëñ ci xam kon xam-xamu diini bi xam-xamu àdduna bi lépp xam-xam la. nag ñoo jël xam-xamu àdduna di ci def lu leen neex ah. Mhm. <laughs> wàcc wàcc li ci ci li ci li ci ko li ci ci li ci li ci yàlla suñu borom wax. xam nga bu fekkee ne ki nga xamante ne gëmul yàlla suñu borom subhanahu wa am na ñoo xam ne gëm nañ ko sax da xam ni xam ba pare. xel ñaari façon xel la. Mm-hmm. daa am xel muy wax aqlul maat ak aqlul maat ma maat nag ku ko am. Mm-hmm. kooko adduna bi dina ko jël jëfandikoo ko ci yoon yàlla. Mm-hmm. waaye aqlul maat ki nga am day jël adduna ji yaakaar ne loolu kasi moo ko tax moo taxoon yàlla bind ko sax. di ko utiliser utiliser boo xam day dem ba mel ne loolu rek moo tax suñu borom subhaanahu wa taala bind ko. booy xool tubaab yi ñoom. yàlla subhaanahu wa a mi wax ne ya'lamuuna zaahiran min al-hayaati dunya wa hum ani l-aaxirati hum gaafiluun dañuy xam zaahiru àdduna ba mu jeex tag waaye na ëllëg yoom xam dañ faa xamuñ fa dara suñu na sax lu ñu xamul ëllëg amul solo waaye lu ñu xamul fii amul solo ñoom tubaab yi lu ñu xamul ëllëg rek loolu neewut lu xam-xam bu am solo neewut lu am solo waaye fii lu ñu fa xamul rek neewut lu am solo loolu nag dafa occidentaux yooyu dañoo dem ba tasir yeexitalu ci ñun nit ñi ñuul ñi amaana nag loolu muy juddoo ci colonisé yoo xamante ne jaar na suñu digg ñoom ñu yàgg dëkk ak ñun ñu jonjoog ñoom te itam ñu teg leen fu kawe ba di leen roy yooyu day am jikko yoo xamante ne day des ci ñun su ko defee day dem ba mujj gi suñu au lieu ñu gën a dundal suñu ruux suñu jëmm yi suñu suñu jëmm yi lañuy gën a dundal. Mm-hmm. ah muy la am solo Mbacke sëñ Massamba Mbacke. nekk rak Cheikhul Khadim ab sëtam bu toogee fii eh, jóge ci sëñ Modou Faty Khary nekk leer ko sëñ Moustapha moom sëñ Modou Faty Khary kon bu toogee fii li muy wax ni ku am xam-xam ku ne di ko déglu ndax message yi mi ngi ñëw ku nekk naan macha allah numéro téléphone yi mi ngi noonu ku ci bëgg a jaar bokk ci jotaay bi da ngay def 247 00 59 ci ngay jaar bokk ci Waarwi TV dugg ñuy waxtaane nag wàllu xam-xam